député bu ñuy tëj mu am immunité parlementaire mu toogee ko ab prison loolu moom mooy li ci gën a rëy te loolu sénégalais yëpp d'accord nañ ne loolu forfaiture la kon loolu ñun ñëpp il faut ñu taxaw ci ah ci réewu démocratie lañ nekk réewu démocratie nag loolu jarul autorisation yëgal la loolu la constitution wax ne boo buggee def lu mel ni marche mbaa rassemblement da ngay yëgle comme ça euh, état jël disposition yëpp pour nga nekk dans de bonnes condition def ko loolu incha allah li ñu constitution may dinañ ko def bu soobee yàlla. ñu ngi dajale di dajale jàpp nañ ne ah bu ñu jàppee nit ba jàpp ab député ah boo xam ne am na immunité parlementaire loolu otage la kon nag otage rançon rek moo ko mën a génne kon fu mu ne nii sénégalais yëpp a ngi mobilisé wu gis ngeen ci biir salle bi xale yaa ngi doon jaay nit ñi samedi waa Grand Yoff dinañ dajaloo jaay. jaay ko nit ñi en direct ñëpp ñëw jënd ah ñuy continuer di mobiliser te jàpp nañ ne yàggatul incha allah.